sistis def liggéeyam ñu àtte ñoo Modou Yade ñu xam fi ñu féete su fekkee lii sa dafa dee ñoo xam ne dafa dee. réew mi ba nga sow pourtant ku ci nekk yaa ngi sa bakkan di dund mais lii satin kenn xamut fan la nekk. ما للعيون بدمعها رقراقة ما للقلوب بأصلها تتقطع aoudu billah nga bismillah nga inna wali yàlla nga asalaamaaleykum wa rahmatullah bokki Sénégal bokki bitim réew su ngeen déggee loolu seen xel war a sori lool mbokk yi association sew ca kanam ñoo leen di yëgalal ci conférence de presse bu ñu fas yéene organiser bu julee tabaski ba am ñaari fan yemook àllarba fukki fan ak juróom-ñeent ci mois de juin 2024 ci réew maawo ca sewti di ko ànd ak mouvement Bawal Debout ci njiital président ba di Modou membre yi mouvement Bawal Debout yëpp mu jëm ci mbirum Lissa Tine di boobaak léegi mu toll ci juróomi at ak ñetti weer kenn xamul ci moom dara kon bokki bawal toogaay jeex na na bokki bawal yëpp mobilisé wu jóg mercredi 19 juin 2024 à partir de 9 ngir lii saatin dañoo war a xam fu mu nekk ak ci lu mu nekk mbokk wolof ne ku mënul yéeg war a mën a bés ku daanu ku mënul teew mën a teewal ngir sàkku ay leeral wala bëgg a barkeeloo moo xam matériel wala xaalis wala lu mu mën a doon jaaral ci numéro de téléphone yi 77 504 0060 77 430 50 78 muy Wave wala Orange Money kon mu conférence de presse association sew ca kanam di ca ànd ak mouvement bawal débu yëpp ak bokki bawal ñu ciy soñ doomi bawal yëpp bàyyi wuñu kenn bàyyi wuñu fenn bàyyi wuñu ñenn ñu ngi ñaan ko ca yàlla yàlla faj say aajo ci barke yonente bi alayhi wasalaam man woo naa jëkkër gi si sen si jour bi sama yaay dafa coupé ak man rek ma ko sama papa bu ko waxagul dara xam naa jikkoom bàyyi ma wax moo doon bi ko woowee gëj ngaa dégg تتقشعون